doomi maam jaara ya waay la la doomi maam jaara ya waay doomi amoon nar yaa fa daan xadim nan tege nan tege fon wo jam ni wiyo nakal kamal aman mi ay setina badun bununi fekena yaaram bi xol yi sedd na gis la ñu mi naan janam ak lañ bi ay sedina bu doore fenk na yaaram bi xol yi gis la ñu mi naan mam soxna Isa ngi soxna Mami sa Mbàkke borom gafengeen maam maam soxna ay saa ngi nii mi ngi mën na moom de moo ngi nii léegi ngi nii yaaram bi xol sedd na tawaaf nga aj nga umra nga jamaam yóbbe je sànni nga marwa ak safa te joxe nga sa ajja Mbàkke nangu na magi soxna Seynabou magi soxna maam Jaara Sëriñ Muntaxa gërëm na la nee na jëwriñ nga kenn nga demal te am ngërëm sa ajja Mbàkke nangu na bismillahi ti ma jóg wuy ci ngeen ji leen siñaway juma juma loolu boobam soxna Jaara moo sa kët fa daan tël mamoon fanaan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy tàmbalee suñuy kàddu di ñaanal seen Muntaxa mu yàgg fi loolu te di ñaanal seen Modou Mbend Fall mu yàgg fi loolu te xam naa nag kàdd yi moom du gudd ndax danoo tàmmawul wax ci mikro dañ leen di defal présentation bi nga xamante ne rek ñoom noo fi teew bu ko defee nag li ci des jëwriñ seen Cheikh Mbeng dina ñëw dugg ci programme bi ni muy demee ñépp xame ko noonu délégation bi ràññe nañ ci sëñ Cheikh Mbàkke mu sëriñ Abdou Baaxe mu sëriñ xaas mu ngi teew ci délégation bi Mbàkke nu ngi lay ziare ràññee nañ si délégation bi ba tey seen xaadim ñaŋ maa yomba ràññee nañ ci délégation bi imam Massayer Fall mi nga xamante ni Gabon la jóge di doon ilimaan gi nga xamante ni moo nekk ca mosquée Montagne Sainte ba nekk ca Gabon imam Massayer Fall teew na ci jotaay bi bàyyi moo jaan jës bu moom nga xamante ni sunu bàyyi la ànd ak ñun ci liggéey bi nga xamante lépp lu ñuy jàng alxuraan ca gamoon rek moom moo koy jiite teew na ci jotaay bi sëñ Mar Seck moom it bokk na ci délégation bi nu ngi nii toog seen Omar Ndiaye mu ngi nii toog sëñ Kàllaam Ñang sëñ Cheikh Gay moom it jóge gamoon mu ngi nii teew di nuyu nag surtout rek sëñ Moustapha sëñ Moustapha Ñang Moustapha Silla moom it di sunu lool nga xam ni fan yee ginnaaw rek la jóge ci ñun ci ca Gabon loolu mooy délégation bi nga xamante ni ñoom ñëw nañ fi ba tey léegi nag ñu ñëw nag si ki nga xamante ni moom lañ jagleel bis bii marraine ko ko muy soxnamaam maam Issa Mbacke Ahlul Café soxna maam Issa ñu ngi lay jaare bu baax délégation Gabon bépp a ngi lay ziare di la jox sa wàccuwaay soxna maa Isa teew na fi nu ngi koy ziare soxna say mu sëñ xaas Mbàkke moom it teew na fi nu ngi koy ziare di ko jox wàccuwaayam soxna maam jaara Mbàkke teew na fi soxna Ndey Juuf teew na fi soxna ay soxna Ayta Touré teew na fi soxna Anta Diagne moom it teew na ci délégation soxna Maa Issa Ahlul Café soxna Njéemé moom teew na ci délégation bu maam Issa Mbacké Ahlul Café bu njugee ci loolu nag ñu ñëw ci sunu mbokk jàngkat yi nga xamante ni teew nañ ci bis bii ñu koy commencé si Serigne Bolle Mbaye nu ngi koy jaare moom it di ko jox wàcce am teew na ci bis bi sëñ Jili Dramé teew na ci bis bi sëñ Ilimane Touré kooku nag dinaa fa taxaw tuuti ndax da di sama xarit te ñu ngi ko a gisee maak moom tey yàlla def ma bëgg ko lool sëñ Ilimane nu ngi lay jaare bu wér di la jox sa wàccuwaay sëñ Alaaji Seck mi nga xam ne moom it duggee ci dëkk bi keroog gàmm ko ba léegi moo nu dalal fu ñu jëm mu ngi topp di daw guddeeg bëccëg nu ngi koy jaare teew na sëñ Omar Ndiaye moom it di jànka ca Gabon teew na loolu mooy délégation yi nga xam ne teew nañ bu fekkee ni am na ñeneen ñu ci delloo dolli dolleeku dinañ leen dinañ leen tudd seen i tur léegi nag seen Cheikh kon boog nga ñëw dugg ci programme bi soxna soxna Batoor Seck jóge moom it ba Dakar moom moo yore selilu caravane ba bi nga xamante ne moo nekk Sénégal soxna Bator moo ko jiite ànd ak délégation bu mag soxna May Diop ak délégation bu mag léegi nag seen cheikh dañu ñëw rek pour nu bañ a monopoliser parole bi bu ko defee ñu ñëw nu dugg ila bilal azim wa kun muhisan lana min sarri si asadin ma sarri famin wa sarrin ayni yallahu wa sarri sirrin wa sarrin xalqi imsihi moo man jini wasawaat din sommi yàlla mbokki jullit yi mbokki taali bi fi teew ñi ngi leen di nuyu balaa ñooy àggale nuyoo bi ñu présenté ñi nga xam ne ànd nañoo ñoom tey jii teew ci quartier ngiraaneen wuy si jëwriñ ju am solo ci liggéeyu Karawaan Mayumba muy sëñ Xaasim Sarr mu mel ni ñii sëñ As doon lim jàpp naa ni mën naa ni ñun ñoo ñëpp ànd waaye ci teewaay bi nga xam ni jëwriñ ma imaam Massayer Fall teew na ko fii te doon ilimaani ratib ca jumaay sëriñ Touba ja nekk Gabon mel na ni ñun ñëpp ñu ngi bootu ci ginnaawam muy sëñ Moussa Niang Kàllaam doon responsable transportu karawaanu yomba ñëw na fii mi ngi teew ci suñ biir mi ngi ànd ak sëñ Omar Ndiaye mi nga xam ne tamit moo yore responsable communication karawaanu Mayomba ca Gabon ñu fekk si nag jëwriñ ju mag a mag a mag yoo xam ne ab taxawaayam rey na te ràññi muy soxna Batoor Seck nga xam ni karawaanu yomba bii moom mooy ay tànkam mooy kàddoom fii ci Sénégal ñu ànd ko ak boroom këram sëñ Mar Seck ak mboolem taalib yi fi nekk yépp ci Sénégal tey jàppale karawaan bi ñu mën cee sëñ Xaadim Ñaŋ mi nga xam ni bi sëñ Tuubaa dee maamam mu yittewoo liggéey béppit fépp fu ñu toll ñoom moom ñoo fa àndi toll jóge na fii Sénégal ci ay yoon ñëw ànd ak ñun karawaan bi doon koo xam ne ab conseil la lépp la ci liggéey bi kon xam naa jataay bi dafa guddi te yërëm nañ bu baax a baax ni soxna si wuy wuy ak fi mu te jànkati xasida yëpp teew fi kenn ku ne wacc sa yitte waxtu yi biig wala lu ko gën a guddi ñi ngi nekk ak sëñ Mor Talla Kane mais ca Carrefour di fa waxtaane loo xam ne bis bii rek ak lii nga xam ne moo ñu dajale fii tey la te kenn ku ne xam ne diggante sëñ Mor Talla Kane ndongal Touba ak soxna maam Issa Mbàkke kon sëñ As ñi ngi wax ni ginnaaw bu ñu nuyoo ak waa kooku moom sëñ Moutala Niass doon jëwriñ joo xam ni ku dem làmbar na xam ta ta xam taxawaayam muy jëwriñu daayira xasida ba nga xam ni mooy daayira sëñ Tuubaa ba nekk ca làmbar na ba pare lépp mu doon ko fa ndax ku fa wàcc moo lay dalal taxawaayam yaatu lool ci biir karwaanu Mayumba bii moom moom sëñ Moutala Niass kon ñu ngi koy présenté mbokki taalibe yëpp moom it mu bokk ci délégation bi ak sëñ Cheikh gay mais nga xam ni moom it lépp lu ñuy def ca Gabon njàngum alxuraan mi ñoom ñu de ñu dooleel sëñ Modou Diagne mii ni ko sëñ as présenté léegi ca la ci njàngum xasida yëpp ñu bëgg a ñëw rek ci lan mooy karawaanu Mayumba ak lan moo leen tax a jóg ngir ñi fi teew buñ fi jógee mën a yóbbaale loo xam ni suñ ko àggalee ñañ koy àggale ku sab xel ku sa xol nekkoon ci topp jaar-jaari sëñ nga mën a xam nooy def ba mën koo def karawaanu Mayumba am mbooloo la moo xam ni fépp fu muritub sëñ Touba nekk maanaam karawaanu Mayumba tàllal na loxo bëgg na koo ànd ak ñoom ndax li ñuy woote lu mu doon li ñuy woote mooy topp jaar-jaari Sëñ Tuubaa ci Gabon muy caravane sur le traces de Cheikh Amadou Bamba au Gabon topp béréb yi Sëñ Tuubaa jaaroon mandargaa ko fenn fu ci nekk ñu def fa loo xam ne ku fa demaat bu ëllëgee di nga mën a gis loo mën a teg sa loxo di nga fa mën a gisit loo wone ndax ni dem Màkka doone farata ci ab julit ni la dem maa yomba ak lambar na topp jaar jaar sëñ Tuubaa doone farata ci am murit bu yàgg ak Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmad Bamba Rasuul tukkeem bu yàgg bii mus naa wax maam Ceerno Birahim ni ko Birahim tukki baax na ndax tukki day képp ku koy def di nga gind ku ci àddina ba kenn dootu la ma a nax wax ko ni ko Birahim sama tukki bi jariñ na ma loo xam ni bu ngeen toppoon samay jéego lu ngeen sori sori du ngeen gis mukk leen gàccaal seen ndam rek ngeen di gis waaye topp jéegooy sëñtuwaa Tuubaa loo sori sori fii ba Maayomba fii ba Lambarna ba ba ngay dem Matadi wala Brazzaville foofu dem ndamul sëñ Tuubaa rek nga fay fekk su ko defee mu ni maam Thierno bu kenn nax sa bopp ndax képp koo xam ni yor nga sas koog def ci sab cox ba mu mëcc nga feccalee ko sa baraay dinaa tonni baraay ba delloo la sab cox moo tax sëñ Tuubaa àndal nañ xam ni sëñtuwaa kenn mënu koo nax sëñ Bay Jaxate dani sëñtuwaa kenn mënu koo nax kenn mënu koo jommal ndax moom dafay yëri xol xam nga ku yër sab xol xam li ci sab xol du aajowoo nga di ko wax dara li ci sab xol xam ne ko nan nan fa yor suñuy xol jë giir jëm ci sëñ Touba. karawaan bi nag incha allah léegi rek jëwriñu transport bi dina ñëw sëñ Kalaam Ñang tënk ay kàddu yoo xam ni koo xam ni bëgg ngaa dem Mayumba di nga xam nooy def ba mën a dem Mayumba waaye lan mooy suñu objectif nag lan lañ bëgg a def ba tax ñu amal karawaanu Mayumba karawaan bi mooy tukki bi Kajoor dafa xam ni jàmbaar dooni ko kaa ñu xeexi waaye da ko yóbbu fa ñuy xeexee am murit ku ko yóbbu ci barab ba nga xam ni fa la Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul sampoon ñeenti bant ñu sam ñu simpi ko sànni ni ko bu nu xatal sa jullikaay bi xaju fa nga ni ko fii jumaa lañ fi defal sëñ Tuubaa loolu am murit dina ci war dana war a mën a yomb am murit loolu moo tax nag atum ren jii waroon nañoo amal karawaanu maa yomba ci mois de juillet bii nu génn waaye ñu dem tàggu mun Muntaxa xamal ni ko réewum Gabon dafa am ay élection élection nag lañ ko doon lépp mel na ni seetlu nañ ko ci ndax jamono yi ko doon bëgg a gis nañ réew ma fa mujj donte ni ci jàmm la mujjit changement am na fa ndax lu mel ni xeeti coup d'état am fa waaye lépp doon jàmm ca jàmm jooja dara def ko loolu sëñ Touba Xaadimul Mustafa bu ko defee kon ñu tuxal ko nag mois de juillet prochain 2024 mois de juillet boobu nag bépp murit boo xam ne bëgg ngaa dem Gabon bëgg topp jaar-jaari sëñ Touba am nga possibilité di tàmbali di cotiser sa paas di cotiser la la ca yóbbu ñun nag Caravane Mayumba du mbooloo muy commerce mbooloo mu bëgg a jàppale muriti sëñ Touba ba ñu topp jaar-jaari sëñ Touba ba fenn fu ci ne lañ leen fa wax ñu doon ko dégg ñu mën koo gis teg ci seen bët ni ko sëñ Maar Seck may defe ndax sëñ Maar Seck ak soxna Batoor ba ñu ñëw Gabon ñëwuñu fa woon ñoo ak soxna maam Isa Mbàkke ngir ñëw rek dikk ànd ak ñun liggéey bi dañoo ñëw seet si jaar-jaari sëñ Touba gis fa loo xam ni nag loolu liggéey na leen ak mbooloo bi ba fu mbooloo mi àgg rek àgg fa ak ñoom ba tey jii ñu jël bis bi tudde ko son maam sa Mbàkke mi nga xam ni wax naa démb sëñ moo taalakan ni li tax ñu tuddee ko ko mooy son maam Issa murit bi ñun moom lañ tuddee sunu sunu suñu liggéey bii ndax li tax ñu tuddee ko ko moom kuy teewoo mbirum sëñ Tuubaa la daan dem sarsaara ci bu yàgg ci jamono yoo xam dem sarsaara yombul kafeem gi tas na ko ci réew mi daaw bi nga xamee ni empêchement am na ba ñëwul Gabon sax café gu du jeex la ñu yónnee goo xam ni mboolem lañ fa doon def ci kafeem gi lañ koy seggee jëf juree yooyu muy def nag te jëmi sëñ ji rek tax mu di ko def commerce su ci wutu ci dara loolu moo tax ñu xam ni kii yelloo na bisub sëñ Tuubaa bii di maamam ñu tuddee ko ko ak wàccuwaay wam am na ci sëñ Masamba kon mu mel ni li am solo sëñ moo taala mooy murid yi nañ xam ni la ñu tax a jóg dëgg-dëgg du dem ca Gabon di fa taxal ay daayira wala di fa taxawal dara waaye wër ba xam booleen barab yi sëñ Tuubaa nekkoon ñu nemmiku ko fu mel ni maayoo ma ju defal ko fa juróomi sooroor yoo xam ku jógati dëkk bi seen sooroor yee na nga koy séenee ca Libreville barab bee nga xam ne fa la imaam Massaer Fall mi di jiite ku demati maayoo ma fekk fa barab boo xam ni imaam ja Touba lay jóge di wuyoo Mbàkke bu ko defee su loolu jàllee dëkk bañ naan làmbar ñu mën faa defal jëf ju toll noonu dëkk bañ naan njole nga xam fa la fekkoon sëñ Samori Touré ñu mën ko faa defal lu mel noonu lii daal mooy objectif u karawaan bi ginnaaw loolu nag bëgg nañ faa saxal bis boo xam ne at mu jot dinañ ko woote muy bisub Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ci bisub àjjuma lay doon doo ñu tuddee ko Soxna Jaara waaye ngontum Seex Ibra nag moo koy jiitu moo xam ni suñ fanaanee maayam ba ci alxames ya dañuy fanaan ci Seex Ibra ba asamaan set rek xëy tàbbi ci Soxna Jaara Buso kon daal lii mooy karawaanu maayam ba képp koo xam ne nag bëgg na caa dem bëgg a topp jaar-jaar sëñ Touba fii ba juillet prochain sori na am nañ ay compte am nañ ay nit ñu wér ñoo xam mën nañ cee jaarale seen addiya doon den da nga koy ko sépar ndànk-ndànk balaa déwén a jot dinga mën a lijjan sa paas xam naa benn murit nag boo xam ni dama koy joxoñ muy sëñ alaaj sekk daawaati jéeg ba mu jógee dem maayo ma danoo daje kees bi mu dajee kees xam na ni man du ma ab trésorier waaye mu dugg ci ab banque bu ñu romb te retiré fa fukki junni ni ma lii maa ko avancé sama maayo ma jëm war a dem déwén moom alaaj sekk mais moo tax ñaari ata a ngi ni at mu jot mu dem Mayumba ba ba far léegi moom moo yore communication Mayumba fii ci Touba di ci dox dox yu am solo di dajale jàngkati xasida yi lépp mu di ko ci def kon loolu laa bëggoon rek ñu xam ko ginnaaw loolu nag ñuy sant jëwriñ ji nga xam ni moon dajale fii muy sëñ Xaasim Sarr Xaasim ab jarbaat la ci ñun rakk la ci ñun doom la ci ñun lépp la doon ci ñun gabon nga mu nekk ña fa nekk ñépp a ko fa jiitu ña fa nekk ñépp lii ma wax loolu la xaasim doon ci ñoom waaye la waral lépp loo xam ab murid da koy woote sañ xaadim su ko tàmbalee Touba rek ñu war cee mën a rafet njort soo ne ba too dañu woon karawaan bi lancement bi Joal lañ koy defe ji bis bi Joal lañ ko waroon defe waaye bi sëñ xaasim ne Touba la murid yëpp dañoo xam ne Touba du xëccoog fenn lépp lu ñuy defal sëñ Touba Touba ci jiitu moo tax tey jii ñu wuy si sëñ xaasim mii nga xam ni ab yaram ay tegginam ak sax gum sax ci xas dee sëñ tubaa loolu cër bu mu am ci gabon loolu ko may bu ko defee nag kon ñi ngi ñaan ci baaxuk sëñ tubaa quartier bii nga xam ni fi la wàcc muy ngiraaneen soxna maam isa sanc bu bees la fi def waaye dañoo dañuy ñaan ci baaxuk sëñ tubaa suñ borom lewetal ko quartier bi jubale ko ak ay waajuram ak ay magam mag mbokkam yépp defal ko tawféex joo xam ni la muy liggéey ci gabon sëñ tubaa feeñalal ko fii ndax moom sëñ ah waajuram waaw waaw kon xam naa bu demee ba ba ñu kii moo du Sarr mi nga xam moo jiitu tey waajuram te newoon naa xaasim yow defagoo dara ndax koo xam sa waajur làq na ndigalul sëñ xaas yow loo am na la leen ca jëfi kooka nga ko amee yow nag da ngay góorgóorlu ba bu ëllëgee ñoom Amadou ñuy buñ defee dara ñu doon a xam ni def nga dara kon xam naa ne buñ ca àggee sëñ imaam dina joxe ñaan ñu ñaanal Baye Modou Sarr moomu ñaanal tamit ñeneen nga xam ni aju nañ ci liggéey bi te seeni waajur jiitu insha bi sëñ seex ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaare bu baax ci turu mbooloo mépp di la yóbbante am nuyoo ko siyaar ci sëñ du Baaxe di sant nag taalibeem bii ci loo xam ne seq nañ ko ak moom muy muy doon na ndaw nangu naa liggéey te góor góorlu ci bi lool jiite kuréelu xasida ci biir mbooloo mi